salam salaam gay saala biige yaa xamadi sa bop ak sa ngaam yi ni kerbet saala biige ne nga xale yi Ousmane Sonko dañu reer ni amuñu kilifa ya ndax sa bop nabi Vision yeen mag ni yene a yeen yi nga xam ne ndaw da ngeen ko jox adina seenu mag ngeen jox ko adina man yow man xiyaam boo demee looy présenté yàlla caaxaan rek ci lañ lay gis kenn dula gis lu bax kenn fo beugé gis sale biige rek xol ko ci ay caaxaan si mang mu toll ni yow dangaa tuuti waaye doo gone saala bii xale yi xeex xam na li ñuy xeex lan la saala jàng ba yor say diplôme ñi jël liggéey yi di ko jox ñu nga xam ne ay fenkat lañ ay sàcc ay kaay fenal ma ma jox lu loo bëgg ah loolu mooy Sénégal yéen a ngi nax seen bopp yéen nag bu ngeen foogee ne ay caaxaan mooy àddina man ngeen siy continuer de ndax fii lu waaye def boppam waaye ngeen noppi si li nit ñi liggéey xeex lan la ngeen teg ci seen gémmiñ gi xale yi dañoo xam li bëgg lan la di yéen suba ngeen di comprendre da ngeen a yaakaar daw si mbër yuuxu si soirée daw si simb loolu mooy àddina déedéet gone dañ koo def ba sonn gisuñu si résultat moo tax ñi xam ne xeexal sa réew rek mooy dëkk jot li ñëpp yam si. Naby Vision. yéen géwél yi xanaa géwél yu njëkk yi ak alaaji Mansour mbay mi nga xam ne référence la waaye géwél yoo xamante si ni weñ ngeen fodal ngeen tooy fi ngeen nekk ni Macky Sall na rey na taal na tëj loolu rek ngeen koy digal fii la sa morom géewal fekk ay jigéen yu taqale xamu nu ñu def ba am xaas ba mu ne dërëx seenu xaas dem wan na ko tëdd faraas kon yow du yaa ñuy jox eh, eh, eh, kii conseil te sa ak sa koppati boobu di mel ni du yow yaa ñuy jox wax lu dégg sunu gëm leen yàlla te xam ne nit ñi yeewu nañ de nax saara bii nag man dama yaakaaroon ne xëccoo saison fee rek la mën soraanoo Grand Théâtre xëccoo micro pour woy walla wax man pour man loolu rek la xamoon mais gis naa ne nag ku intelligent la gis naa ne làngum bis bi am na ci bénéfice parce que am na xel ku am xel mooy wax nag ku am xel mooy wax ku xam dëgg di ko wax mooy Salla Bigué parce que Salla ndeysaan dafa dafa décortiquer dafa jàngaat bu baax Ousmane Sonko te ni mu jàngee usmaan Sonko loolu képp la yàlla bëgg li mu gis ci Ousmane Sonko loolu la yàlla bëgg te yàlla ci loolu la ñu ba tax na Salla Bigué li ko jaaxal mooy Ousmane Sonko amul géwél te président yi fi jaaroon ñëpp am nañ ay géwél yaa ngi dégg ba taxna mom ci jëm bopam loolu gisuko ci sayidina usman Sonko mu sell mi kon ñun liñ wara def rek moy santat yalla suñu borom ñun xalé yi nga xamne tay ñoy xex pour diiné ak l'islam ñun xeexuñu pour càkkaay franchement ñun xeexuñu pour am-am fay ñu ñun dañuy xex ni barki salatul fatiye mang koy wati turu yalla bu sel bi ñun diiné ak l'islam lañuy xex ay xale yu ndaw lañu mais nañ santaat yàlla man pour man Salla Bigué lenn rek nga mën muy xëccoo seize bay mbéj ay jigéen mais ndekete ku am xel nga ndekete nit njaay nga ndekete doo doo géwél yooyu di dunguru de géwél gu mën a wax dëgg nga te dëgg gi nga wax nii man duma la ci xas gis naa am na ñoo xam ne ñu ngi la ciy teg sa palaas mais dama naan la a jërëjëf ba nga waxee li nga wax te li nga wax ni lépp loolu la yàlla bëgg li nga wax ni lépp ci ci naa Ousmane Sonko loolu la yàlla bëgg gis nga nit na moytu kii topp sa ginnaaw naan la sa a fi defoon lii ngay génn ay xaalis di baatare loolu na ko nit di moytu te dama la ci ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm ndawtal yi ñu lay yóbbante fan yi nga muñ ko rek xam ne ñu ni neen la waaye ñun ñëpp bokkuñu xalaat franchement man nag sama xalaat moom dama rafetlu li nga wax ndax Seydina Ousmane Sonko li may bëgg koy seedeel mooy nitu diine la li may bëgg ñu koy seedeel mooy du nitu tànn biir góor yàlla piir la li may bëgg ñu koy seedeel mooy nitu diine la li may bëgg ñu koy seedeel mooy góor fit gaynde la te ñun ñi ànd ak moom ay gaynde lañu kon saala yal na la yàlla dimbali bàyyi la ak sa micro sorano boobu ngay xëy di wayaan nga dëkk ci wayaan ñu lay may ci barki nabi Moustapha yéen sama mbokk jigéen nga xamante ni ay géwél ngeen yéen a tax ma génnaat bu leen rus benn yoon maa ngi gis ay commentaire yu bari kii yàq na askan wi kii bëgguma bokk ak moom wuy ma doo leen mos a doon moom yéen ay patriote ngeen affaire yi ci maam yàlla nag xam nga dañ doon wax naan géwél yëpp a bokk maam wante waat naa ci yàlla tey jii am na géwél yoo nga xamante ni ñi ngi tracé waat seen deret di xool ndax laale nañoo bii ñii nag bu leen ci dara metti de ñii ñooy axlu toog muy dox ci askan wi lañu bokk yéen bokkoo leen ak ñoom te doo leen mës a bokk ak ñoom xam nga lu tax askan woo gis am na ay mbalit jàppee leen ni ñii rek ci seen mbalitu askanu géwél wi lañu bokk yeneen xeet yi tamit am nañu ay mbalit garaawul ku fi nekk mbalit rek ñu këpp la nii la mbir mi demee léegi nag beneen bi mooy euh, moom damaa yaakaar ne daa laajul euh, fereeram waaw magam xaa lii mbir mi demee xaw ma daa nawloowul magam xaa ba laaju ko ne ko maa ngi dem wax ci usman Ousmane ko xaw ma xaa moo ko nawloowul ba téewu ko wante lum ci mënti doon rek dana ko wexxat ndax xaa bërki démboo njaay ba mu génnee naan nañuy rey ak nañuy tëj. Naby yi dañoo génn wax tuuti mu gën a foncé jëm ci daalin kóor bi waaw waaw jëm ci ki nga xamante ni mooy askan wi nag koo koy bakkanu askan wi kii mooy espoiru jeunesse bi mu ne ci kooku lay laal yi naan président Macky Sall doo dàmploog doo nangam wante weex na ko xàtt xàtt xàtt xaa jour boobu lu mu reeree yow reesu motax ñaari fan lañ ci tek mu jënd galaas gennat nan tuduma tur du mom la doon waxal Ousmane Sonko ku bax la ku yiw la ku nangam ñu ngi ñenté wante la laajoon sama ka, dina lele fofu bayul bu fa dugg patriote yi le xawma lu ñu munul waaye nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko mo lu mën la ñun tollootuñ ci bayina la ak yalla de déedéet Ousmane mom ku yaq ay waxam midi midi de nga lijjanti ko mbaa waaw waaw ku ko waxal loo ko warul a wax midi midi une minute ñu say ci sa kaw nii la mbir mi demee yéen nag sama mbokku euh, patriote yi nga xamante ni ay géwél ngeen dalal leen seen xel ci xoole kii maamam daa jaar goos seen maam jaar droite tey nag gëm naa ni géwél yëpp bokkuñu maam mënuñoo bokk maam seen deret mënul yam ak bii kii Salla Bigué dama déglu sa sa sa interview bi waaye dafa saf ay réer parce que yéen ak Ousmane Sonko bokku leen yoon waaw bokku leen sax combat bi ngeen di mëne Ousmane sonk am na dafa war a am géwél ak am géwél ñun loolu duñ ci wax mais man li ma gën a metti ci wax ji mooy danga ne ñiy topp Ousmane sonk amuñu kilifa yow amoo kilifa ci <laughs> yow amoo kilifa parce que ñàkk kilifa moo tax nga tafu ci ndafa te ndafa jeexal na pare na ci réew mi. Sonko mooy ñëw toog mu neex la mu naqari la Ousmane Sonko mooy ñëw toog kon nag ñun amuñu kilifa. yaa ngi dégg ñun noonu la ñu bëggee Ousmane Sonko même Ousmane Sonko bu dee amul kilifa sax bëgg nañu ko lu ci waay mën man damaa yaakaar ne réew mi nit ñi daal volet bi day def effet volet.